voilà comme ni nga ko effectivement crédit hôtelier et touristique euh, gouvernement bi da ko jagleewloon 15 euh, milliards de francs CFA muy fukki milliards ak juróom pour mu jàppale euh, ñi nga xamante ne ñoo loru ci mbass mi te yëngatu ci walu tourisme ak hôtellerie ci lolu jot nañ fukki milliards euh, yo xamanténi ni tey juróom-ñetti milliards ak genn wala gi donc joxé nañ ko comme financement financement yooyu nag dañ ko jox ñu nga xamante ne ni tey lim bi. Euh, ëpp na euh, ñaari téeméer ak euh, ñaari ñaari junni ak ñetti téeméer donc ci yooyu mun nañ ci lim ay établissement d'hébergement touristique maanaam ay hôtel ak ay auberge ak campement yi nga xamante ne ni donc trois cent cinquante quatre financé nañ leen financé nañ aussi li nga xamante ne agence de voyage et de transport touristique tollu ci lim bi nga xamante ne ni mot na ñaar fukk téeméer ak ñaar fukk ak juróom li nga xamante ne ni mooy ay restaurant aussi de 241 restaurants financé nañ leen financé nañ aussi li nga xamante ne nii mooy ay artisans 858 artisans yi nga xamante ne nii nag ñoom dañu nekk ci site touristique yi maanaam par exemple soo jëlee ñi nekk euh, sali nga jël ñu nga xamante ne nii euh, ñoo nekk euh, au niveau de l'île de Gorée nga jël ñi nga xamante ne nii ñoo nekk au niveau de Lac Rose nga jël ñi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de Cap skirine donc vraiment artisans yi nga xamante ne nii dañuy yëngatu ci euh, site touristique yi am na ñoo xamante ne ni aussi dañ leen di wooye guide pirogue yi yoo xamante ne nii ñoom ñooy jël pirogue euh, touristes yi di leen yóbbu ci li nga xamante ne ni mooy ay île euh, nga ñu bëri fi nga xamante ne ni mooy Casamance bëri fi nga xamante ne ni mooy ay Fatick ay ay Fatick ay ndangaan yooyu donc ñooñu aussi donc boole nañ leen ci ba financé nañ ci lu toll ci cent soixante pirogue yi ensuite li nga xamante ne nii aussi mooy ñiy jaay am na ñi nekk ci centres commerciaux yi nga xamante ne nii ci sites touristique yi di jaay li ñuy wax euh, objet d'art yoo xamante ne dañ koy jagleel touristique ak yooyu xam nga ñoom ñëpp aussi donc bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne ni mbir mi daf leen jàppoon toll ci 137 vendeurs d'objets d'art financé nañ leen financé aussi structure yi nga xam ne vraiment dañuy jàpp ne dañuy jàppale tourisme maanaam lu mel ni golfe de Saly ak li nga xamante ne ni mooy par exemple euh, réserve de Bandia Thank you.